Le message à la nation du président de la République Macky Sall à la veille de la fête de l'indépendance, 63 ans euh, d'indépendance. Euh, la version Wolof, euh, justement, de ce message avec notre confrère Khali Seck. Bonsoir. Salam alaikum, Khali. Alaikum salam, Ibrahima. Allez, dans le jam, nous, en accueillerek, tata, nous, les gars, le président. Inch'Allah, kon nak, nous fassions les mots, les jojis, et nous, nous, askan, vi, yep. njiitu réew mi di président Macky Sall ëllëg ak jàmm di ñeenti fan ci weer wi ñu ne dinañu amal li nga xam ne moo doon juróom-benn fukkeelu ak ñett bi ñuy amal suñu feetu indépendance nee na ci loolu lay sukkandiku nag ngir sargal sant waaye itam delloo njukkal ñëpp nga xam ne ñoom la bokkal réew mi. nee na loolee nag dafa am loo xam ne ni moom la dajeel mu doon daje loo xam ne ni itam mbégte lañu ci mën a amee ak itam xol bu sedd guy ndax kat ku tudd Sénégal tudd suñuy diine te ñi nga xam ne itam ñoo bokk ci umma islamique dañu cee méngoo ak ñi nga xam ne ni ñoo nekk itam waa kër labbe ndax kat koor gi nga xam ne ni ñoom la ñu bokk di ko defandoo nee na loolee nag misaal la ci li nga xam ne ni moo doon taxawaay bu ñu war a am moom njiitu réew mi nee na ñii nga xam ne ni ñoo fi nekkoon démbati yi soog a ñëw nga xam ne itam ñoo doon ñi ñii doon doon ci dëkk bii ñu nekk mag ñi fi newoon tey ku leen tudd itam tudd li nga xam ne ni itam moo doon jom tudd itam pas-pas tudd ay taxawaay boo xam itam taxawaay bu dëgër la bu mucc ayib ñooñu nee nañ nag ba fii noon bi ñëwee démb mu doon tubaab bi nga xamante ni doon nañ indi ay tartar ak coow na ak fitna ñoo ñoo woon jonn nag ngir jëflante ak ñoom nee na loolee nag ci la ñuy sukkandiku muy wal ñu téye càllawle googu ba lii doon itam njàng mi li doon itam tàggat gi ñuy tàggat suñu askan ak itam teg gi ñu leen di teg ci aw yoon woo xam ne itam yoon wu jub xocc lay doon nee na loolee dafa doon loo xam ne am mbind muñ di jàng la saa ne loolu nag moo ñu indil suñu Sénégal gi nga xam ne nii dafa moom boppam Sénégal gi nga xam ne nii itam dafa am cëslaay loo xamante ne ni ci ay jikko yu rafet jikkoy maxaarimul axlaax yu mag ñi ba jàngaloon démb ñu fekk ko fi tey ci la ñuy sukkandiku nee na loolee jàmm ji loolee ak yi nga xam ne itam moo doon kuute gi nga xam ne dañ koo wuute nag te kuute googu tam du lenn lu itam mu jëmmal ak bennoo ci suñu biir nee na loolee waaye waaye nañu fexe ba mën koo suuxat mën cee taxaw temm nee nag euh, li nga xam ne nii moom moo doon ndono loolu ñu mag ñi bàyyal mu doon ndono lu rafet mu doon ay jikko yoo xamante ni itam ci la ñu war a mën a sukkandiku ngir mën a jëm ca kanam day nee na am na taxawaay boo xamante ne nii moom lañ ci gis moo di nag moo doon dëgg dëgg dëgg li samp ak kenn suñu askan ak suñu dëkk. njiitu réew président Macky Sall xam leen ne ñi nga xam ne nii ñoo doon ay jàmbaar yoo xam ne nii ku leen tudd tudd njàmbaar te démb tey soog a ñëw ba ci jamono yi nga xam ne nii dañoo moomuloon suñu bopp nee na njàmbaar te yoogu ak jom jooju doon na loo xamante ni lu fës la luñ mën a teg bët la luñ ne jàkk la ndax kat loolu tey jii moo waral ñu am taxawaay boo xamante ni taxaw nañ ko suñ digganteeg ñu doon jëflanteek ñun démb te itam am fitna juñ ñu tegoon ñu doon ñoo xam ne ni itam bu ñu demee nag ba dagg yenn buum yi bu ñu demee itam ba dagg yenn jéng yi ba dagg yenn jatang yi ak jëng gën ñu jéngoon nee na loolu nag la ko waraloon démb tey jii soog a ñëw war nañ cee bàyyi xel bu baax njiiteerum tey mu ne li nga xam ne nii moo doon suñu gànjar doon itam suñu koom ci wàllu jikko yooyu ci wàllu itam melo yooyu nañu fexe ba nag ba mën koo téye téye ko téyin woo xam ne itam téye wóor lay doon ne ko nuus téye ko téyin wu dëgër woo xam ne ni itam dinañ ko mën a dem ba nag jébbal ko suñuy doom ak ñi nga xam ne itam ñoo war a ñëw ëllëg ak jàmm ngir loolu doon loo xam ne ni mooy wëy di doon li téye suñu réew di téye itam suñu dem suñu kenn réew nee na feet gi nga xam ne nii moo doon suñu feet indépendance doon na feet goo xam ne itam ku ko tudd tudd fàttaliku fàttaliku nag fàttaliku njàmbaarte fàttaliku itam taxawaay fàttaliku itam pas-pas boo xam ne nii moom la ñuy wax suñuy ancien combattant bi maanaam ñi gàdd woon seen i ngànnaay nag te nekkoon ak tubaab bi doon itam aar tubaab bi doon leen jàppale nag bi nga xamante ne ni sañaxan ñoo loon leen am itam fitna juñ leen doon indil mu nekk ñoo xam ne ni bu ñu leen tuddee tudd suñuy maam yi nga xam ne nii bu ñu tuddee suñu kaaraange tey ji loolu ak càllawal la ciy doon nee na ñooñu mi ngi leen di nuyu di sargal ñooñu di leen sargal ak war ma di leen sargal ak gëdd bi nga xam ne nii moom la ñu yeyoo ak itam wàccuwaay bi nga xam ne ni moom la ñuy yeyoo ak worma nga xam ne itam moom la ñu ñoom ancien combattant yooyu nga xam ne ni démb tey jiikat bu ñu waxee démb tey bu ñu waxee tey jii démb tax te ñooñu itam kenn mënu leen a génn ci démb nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekk soldaar si moo xam ne ca kaw ba ca suuf muy ñi wax ay officier bi maanaa ñuy kilifa yu kaw yi nga xam ne itam seen i mbagg diis nañu ba ci ñi nga xam ne ñoom la ñu toftale toflane toflante noonu ba ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo féete ca suuf ñëpp mu ngi leen di nuyu di leen sant di leen itam xamal ne kat lii doon yaakaar ji nga xam ne moom am ci ñoom dara du ci yàkkeeku ak kóolute gi ak jàpp gi moom ba tey njiitu réew mi xam na ne ba tey ci wàllu suñu réew am na ci nag loo xamante ne nii moo doon ñi nekk ci wàllu kaaraange gi ñu am itam ñu dafañ demoon ba am seen bakkan rot fa mbaa itam ñi am ci ay gaañu gaañu nee na ñoo ñee day ñu yeeyoo siggil leen ñu yeeyoo itam cër lañ ñu yeeyoo itam li nga xam ne nii moo doon warma lañ ak li nga xam ne nii moom moo doon dayo ba ñu am nee na ñooñu kenn du leen fàtte ndax seen deret la ñu ngir seenum réew ñi ci nekk itam am ci ay gaañu gaañu ñu ngi leen di ñaanal wér ak aafiya ci nu mu gën a gaawee ba tey moom jiitu réew mi xam ne ne Euh, li nga xam ne nii moo doon suñu réew li nga xam ne itam moo doon suñu kaaraange dafa am lëngoo goo xam ne itam dañ ko lëngoo ak suñu askan di leen jàppale di leen taxaw ci li nga xam ne nii moo doon sas wuñ leen sas nekkuñ ne rek wàllu kaaraange gi naam ñi ngi ci waaye nag dafa am yeneen jikko yoo xam ne jikko yu tànneefu la ñu doon ñoom ñu meloo noonu bindoo noonu loolu itam ñu xam ko ci ñoom démb tey soog a ñëw ñuy wéy di ko doxal moo waral itam jàmm ji nga xamante ne ni ñi ngi ciy wëy di ci dox di ci gont ba li nga xam ne ni bu ñu ko tegee ci balance loolee da koy màndaxe ba faw xëy itam suñu njort njiitu réew mi xam na ne ku nekk xam ne ni liggéeyu kaaraange am na fitna ju ci am li ñu maanaa di tubaab di wax risque bi maanaa loo xam itam daanaka loo ci mën a jëlee mu xoon gaañu gaañu mu xam itam bakkan bu corot waaye nag nee na loolu ba ngeen sol xamee loolu xàmmee ko ba teew tax itam ngeen sol seen yére solu armée itam dem di ñu aar ba ñu mën a nelaw ba yandoor nee na loolee day lu rëy la loolee itam moo tax ñu war leen di delloo njukkal nee na nag am na ay ñaawteef am na ay defkatu mboosóor def na am na itam defkatu musiba yoo xam ne nii ba tey ñi ngi woy itam di gën a xereñ moo waral nag lépp lu muy def itam ci wàllu kaaraange gi di leen utal ay ngànnaay di leen utal itam di leen ay jumtukaay ki matuwaay nee na loolee dañu koy yokk la waral ñu koy yokk moo di noon ba moo yokkee di doon taxawaayam ak itam àdduna moo bindoo ni ni mel moo waral kenn itam du dellu ginnaaw ci la nga xam ne moo doon taxawaay bañ ca taxaw nee na bu tuddee wàllu gendarmerie loolu misaal la ci ndax lii ñuy wax ay escadron bi maanaam mbooloom gendarmerie moo xam dinañ leen itam ubbil fenn ñu mu nekk fi itam seen bërëbu liggéeyukaay nee na lu tolloog fukki bërëb ak ñaar ci Sénégal a ngi nii am nañ ci yu yees fu ci mel ni Saraya Bignona Sédhiou Koungheul Ranérou fu ci mel ni jum Podor Kaffrine Fatick fu ci mel ni Mbour Kër Massar ak jam ñaajo foofu yëpp doon ay bërëbu gendarmerie yoo xam ne tijji nañ ko fa ngir mën di saxawal li nga xam ne nii moo doon kaaraange ñuy séntu ci ñoom police bi itam noonu la ndax lu toll fukk commissariat yu yees fu ci mel ni Parcelles Assainies unité 15 fu ci mel ni Golf Sud Diamaguène Sicap Mbao Euh, fu ci mel ni itam euh, Rufisque euh, Est fu ci mel ni fi nga xam ne nii moom moo doon yëmbal Comico Zac Mbao Thiaroye Linguère Nioro Dirib ak fi nga xam ne ni moo doon Koungheul te itam jamono yu néew dinañ tijji ca Kër Massar ba tey moom njiitu mi xam ne ne loolu yëpp nag mu doon ay jéego yu ñuy def mu doon itam ab lim bu ñuy jël takk ko mu néew say ngir mën a am ay kaaraange gu doy nee na loolu nag dafay laaj xereñte loolu nag dafay laaj indi li nga xam ne nii moom moo doon lay tolloo ak la ñuy soxla ndax nee na jamono moo ko laaj day dem nit ki bu fekkente nam dafa am sas woo ko sas am looy ci moom da mën a fexe nag ba teg ko ci anam yoo xam ne nii loola ngay séntu ci moom dina ko mën a motale nee na moo waral alal ji ñu ciy def ak koom mi ñu ciy def ak li nga xam ne itam moo doon lii ñuy jël di ko takk niw say di ko toppatoo lu ni lii moo waral lu ni ndax nee na nag kaaraange dara amul loo xam ne ni itam mën na koo wecc nee na loolu nag buñ ko doon def démb nag tey yi lañ ko war a gën a yokk ndaxte yi li fi feeñ mooy suñu alal di suñu koom di suuf ci suuf si ak loo xam ne nii moo doon wàllu pétrole wàllu gaz te loolu nag laaj waggar gu mat sëkk nag ak jàpp goo xam ne itam dañ koy jàpp sëkk ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon taxawaay bañ ci war a am ngir lépp loo xam ne nii moo doon nañ ko war a mën a wattoo nañ ci war a mën a fiire ba kenn bañ ñoo bëtt suñum ñàkk loolu ñu mën cee def suñu kem kàttan nee na nag ba tey leneen lu ko war luy war a wan a indi loolu moo di boo nekkee sam réew bëgg itam am ñu cër bu ñu la jox da ngay am melo ak taxawaay boo xam ne nii itam di nga ni mel ba li nga xam ne nii moo doon itam lañ lay xooleek lañ lay ragale loolu doon loo xam ne itam lu fës lay doon ndax neen suñu pétrole suñu gaz bi daal ak li nga xam ne moo doon mbel ak koom mi nekk ci si ak léeg-léeg itam jafe yi ñu ci gis ak ñoo xam ne dañuy ñëw di wëq ak itam di mbaal ak ne doo ñett suñu alal jël ko mel ni itam lu ñuy këf ak lu ñuy siif nee na loolee doon loo xamante itam dafa am lu war a mën a saafara loolu te la kay saafara nag moo di taxawaay bi ñu am ci suñu kaaraange nee na moo tax nag bu ngeen gisee mu def itte def warteef lii nga xam ne nii moo doon dolli gu ñuy dolli dolli ci kaaraage gi nee na loolu rek moom moo ko waral bu ñu doomee nag ci at mi nga xam ne nii moom la ñu du génn nii at mii ñu nekk ci njëlbeenu at mi ba mu doon waxtaan ak askan wi doon na xamal li nga xam ne moo doon ay liggéey yu ñu def ci wàllu tali ci wàllu yoon ci wàllu pont ci wàllu loo xamante itam day gindi ay indi lii doon itam ak yombal ci wàllu dem beeg jikki bi ba jafe-jafe itam ñu mën leen a jatang mën leen a tënk mën leen a wàññi nee na loolu moo waral mu am loo xam ne nii itam lu muy bay waaram la ci waar woowu di ci soññ itam ñi nga xam ne itam ñoom la ci nekkal nee na naam jamono am na nu mu demee ak ay jafe ki tolluwaay naam itam jamono am na noo xam ne itam noonu la bindoo te mu wër àdduna kap waaye nag loolu teewul lii ñuy def ngir indi ak rox ak njàppale suñu askan su ñi xam ne itam seen loxo jotul seen ginnaaw nee na loolu moom lu ñu ci doon def benn itam dañ koy gën a ñaar ci la cay misaal itam moo di wàññite gi ñu indi ci li nga xam ne ni moo doon luwaas bi wàllu tali wàllu yoon wàllu pont loolu doon na loo xam ne itam lu fës la ci li nga xam ne nii moom moo doon liggéey bi li nga na itam ndax chantier ku xëppi sa bët itam di nga gis li nga xam ne ñu ngi ko ciy def ngir gox yi nga xam ne nii dafa dafa mel ni itam am na daanaka nu ñu xawoon leen a ginnaawee loolee ñu mën cee benn indi saafara ba lii ñuy wax équité territoriale tollale xar kanamu dëkk yi loolu doon loo xam ne itam lu yemb doon ci pont yi noonu la ko tuddee yoof ñoo ko tuddee itam kër goo cité kër goo gi noonu la ko tuddee Saint-Lazare Lobat Fall ak kër Massar ak bi nga xam ne itam moom moo doon Cambérène ak Marsassoum nga xam ne nii ñoom ñëpp doon na lañ loo xam ne itam lu jàppandi doon moom ba tey njiitu mi di président Macky Sall ne ba tey ci yoon woowu nga xam ne ci la jaar moo waral ci weer yi nga xam ne nii moom la ñu génn wala ñu nekk ba at mi ñu nekk bu ñu ba si juróom-ñaari weer juróom benn weer yu mujj dina am yeneen loo xamante ni dinañ ko am ci wàllu berte BRT bi nag mu nekk loo xam ne nii daanaka oto buy daw le ci ay raay mu doon oto boo xam ne tam ci tali spécial lay jaar loolu yëpp di gën a mandargaal rek taxawaay bi ñu taxaw ngir gën a mën a indi ak jàppale ngir gën a mën a dem ak yombal ci dem bi ak dikk bi nee na nag loolu BRT boobu eh, incha allah lu tollook téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ci ay bisam bi maanaam ay kaaram moom te loo xam ne nii ci wàllu courant bi lay daw te dina leen ci dinañ am taxawaay buñ ciy taxaw te loolu sax dina ci gën a am ak jàppandi ci li nga xam ne moo doon jant bi ñu suñu borom jagleel ngir ñu sam ñu mën ci gis sukkandiku nee na loolee nag doon loo xam ne ni lu néew a néew lu ñu koy gis ci àdduna loolu nag incha allah la cay doon la cay firnde mooy weeru mais wii ñu dëgmal buñ ci yàlla yóbbu jàmm loolu kaar bisi BRT yooyu dinañu tàmbalee daw na ba tey boobu dina am lu mu indi la mooy indi mooy lu tollook juróom euh, juróom ñett ñetti téeméeri junni euh, ci ay nit incha allah dinañ ciy mën di dugg di dem ak dikk te du am loo xam ne itam saxaar su leen di xër la te na nag leneen la cay nekk mooy internet bi nga xam ne nii moo doon lu munta ñàkk la dina nekk mu jàppandi ci ñi nga xam ne itam ñooy nekk ci kaar yooyu nee na nag loolu doon na loo xamante ni ci wàllu woowu incha allah dinañ ci am taxawaay buñ ci taxaw nee na ci BRT bi ak TER bi itam am na ci taxawaay boo xam ne nii dañ ko indi ne ko ci ndax teer bi nga xam ne ni nag moo doon saxaar kiy dem ci yenn barab yi boo xoolee tey diggante Géejawaay ak Ndakaaru rek fu ñu doon def benn yenn waxtu ak fanweeri minute tey jii ñeent fukki minute ak juróom képp lañ koy def te nee na nag lu tollook junniy doomu aadama ci ay ndaw jël nañ leen ci ñu ciy liggéey am nañ ci ñoo xam ne mbaa ña nga am ñoo xam ne itam ña nga leen ci ñii jël nañ leen lu tollook junni itam dinañ leen jël ngir ñu mën a bokk ci liggéey boobu te nee na sax jël giñ leen di jël ña nga ci waar woowu nee na loolu nag ci lay xuuse dugg ci wàllu ndaw ñi nee na li nga xam ne nii moom moo doon ëllëg ak jàmm tolloog ñeenti fan ci weer wi ñu ne dinañ amal suñu feetu indépendance mu ciy sargal di ci sant di ci kañ suñuy ndaw ndax kat nee na doon nañ ñoo xam ne ëllëg ñoom ñoo fi war a nekk te ñoo war a itam kuutaay li téye ndono li kon nag ñooñu dañ leen a war a waajal war itam di gindeekoon teeg ñoom moo waral mu xamal ndaw ñi ne sama itte ngeen xamal na leen itam sama yilimaanu soxla ngeen xamal na itam lépp loo xam ne itam bokk na ci li mu doon samay cër yu may taxawee farata ngeen ci nee na loolee na ngeen ko xam na ngeen ko xàmmee te buñ ci réeroo buñ ci juuyoo nee na xam naa bu baax xàmmee bu baax itam li nga xam ne nii moom moo doon seen itti seen bëgg-bëgg ak seen i mébét ak seen i naal nee na loolee nag lépp loo xamante ne moo doon taxawee biñ ci war dara du ca sooxe ba tey njiitu réew mi xam na ne li nga xam ne ni moo doon lu ñuy dugal ci wàllu koppar wàllu njàng mi ak ci wàllu tàggat ay nit ba ci wàllu lekkool yi fu nekk nag am na taxawaay boo xam ne nii dinañ ko ci gën di farlu ba ci wàllu daara yi nga xam ne itam moo doon daara moderne bi maanaam ay daara yoo xam ne itam dañ cey jàngale ay métier nee na li nga xam ne moo doon wàllu njàng mi ak xam-xam bi nee na am xam-xam lenn la waaye nag ñu xawal am tam waajal la waajtaay woo xam ne ci ngay mën a jëfe xam-xam boobu mën koo liggéey liggéey boo xamante ni fa ngay dem ëllëg duñ la jàngalaat noonay xam-xam nee na loolu nag lu ñu war a bàyyee xel la moo waral ñi nga xam ne nii ñoo nekk ñuy liggéey ci yenn barab yi ak ñi nga xam ne itam ñoo nekk fenn fi ñu leen di jox ay cër yu ni mel nañ ciy gën di bàyyi xel nee na ñiy doon patronat bi bi maanaam ñu yor këru liggéeyukaay yi li nga xam ne nii moo doon lañu leen di jox ak la nga xam ne itam moo doon la ñuy séntu ci ñoom mooy fexe ba ñu taxaw itam bay seen waar ci loolu ci li nga xam ne moo doon xëy mi ak li nga xam ne itam moo doon taxawaay bi ñu war a mën a taxaw mën koo mën a jàppale ndaw ñi neen nag am xam-xam boobu ni ñu ko waxee ak am xam-xàmmee boobu bokkul nag ak am taxawaay boo xam ne itam taxawaay bu wér cëng la boobu suñu leen a rek nga ne acce ci wàllu liggéey bi nee na loolee nag waajtaal nee na loolu nag la bëgg a soññ gën a soññ bopp gën a soññ ñëpp itam moom njiitu réew mi nee loolu la ciy mooy ISEP ISEP yi e nga xam ne nii dafee nekk ci yenn université yi te itam ñu cee tàggat ay ndaw ci seen àll wa lu ci toll ak fan itam fanweer ak juróom-ñett ci ay yenn barab yoo xam ne nekk na ci département yi mu doon ay kër ñu fa tijji ngir tàggat fa ay ndaw wàllu DER bi itam nee na loolu la ndax DER la ko tax a jóg moo di indi ay koppar di ko jox ñi nga xam ne ñoo doon ndaw ñi ak soxna yi ngir jàppale leen te dañuy yaxantoo nee na loolu nag ba tey mandarga ci wàllu nu mel xëyu ndaw ñi itam lu tolloo ko juróom benn fukki junni ak juróomi junni loolu doon na loo xam ne nii lu ñuy mën a waajal la ci jamono yu néew ci li nga xam ne moo doon wàll woowu waaye itam am na juróom-benn fukki junni ak juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk yoo xam ne nii dugal nañ ko ci ay xëy ci wàllu ndaw ñi kon nee na xëyu ndaw ñi loolu ab taxawaay la ci nee ci loolu li nga xam ne itam moo doon mébét ak bëgg boobu nag am na ci taxawaay boo xam ne nii lu tollook fukki junni ak ñeenti junni ak téeméer ak juróom fukk ba tey am na ci ñu cee tàmbalee am ay liggéey yoo xam ne ci diggante yenn këri liggéeykaay yi nga xam ne nii dafa am lëngoo gu ñu lëngoo ak ngóor gi taxaw nañ ci wàll woowu nee nag bu ñu nee nag ba ca fa nga xam ne moom la ñu bëgg mu doon suñu xemmemteef nag mu doon ñaar fukki junn yoo xam ne dinañ leen dugal ci wàll woowu nee na wàllu product moo xam doon ay tool yoo xamante ni itam tool yu dëppoo ak jamono la ngir mën a indi lu ñuy bay di dunde waaye tam ngir mën a indi am xëy ak wàllu agropole yi itam doon na loo xam ne ni ku leen tudd tudd waar yi nga xam ne ni war nañ koo def ci lu ni mel lépp loo xam ne nii moo doon wàllu xëy mi ak lépp loo xam ne itam moo doon wàllu rawatina xëyu ndaw yi ak seen xam-xam ak seeni xarañte loolu ñu mën cee bay waar woo xam ne itam waaru mucc ayib lay doon nee na lii nga xam ne nii moo doon wàllu pétrole gaz bi nga xam ne ni suñum koom la bu ñu am ci suñu dëkk nee na am na ay ndongo yoo xam ne nii ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne nii lu toll juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñii doon ay ingénieur ñii doon tamit yeneen xeetu techniciens yoo xam ne dañ leen di toftal ci ñooñu ngir ñu am xam-xam bu wér cëng boo xam ne nii duñu jéggaane nañuy mën a jëfandikoo suñu pétrole ak suñu gaz bi loolee nag di contenu local mu di ñi nga xam ne nii moo doon suñuy ñoñ doon suñu alal doon itam suñu njaboot ñu mën leen a tàggat teg leen ci aw yoon woo xam duñ jéggaane lenn fenn nee na loolu moom itte la joo xam ne nii dina ci gën a soññ boppam gën cee soññ ñëpp ngir lépp li nga xam ne itam dañ koy soxla ci wàllu woowu mu doon loo xam ne nii dañuy gestu rek daal di koy gis ci suñu njaboot njiitu réew mi nag nee na mi ngi sant bu baax ci li nga xam ne nii nag moo doon ëllëg ba euh, fan yi bu war a dajee ak ñi nga xam ne ñoo doon bi mu gën leen a a soññ ci lu mel ba moom njiitu réew mi nee na bu ñu xoolee li nga xam ne nii moom moo doon wàllu xale yi Euh, ak liggéey bi nga xam ne itam dañu koy liggéey ngir mën a xayma suñu askan mu doon juróomeelu yoon lu tolloo ko euh, fanweeri euh, junni fanweeri junni ak ñeent ñeenti junni ak juróomi téeméeri ndaw yóbbu nañ leen ci àll bi ngir lépp li nga xam ne nii moo doon lañ war a mën a xayma askan woowu ñu mën koo def loolu ñu jàpp ko fukki fan ak jàpp fukki fan ak juróom ci diggante weeru mai ak weeru juin njiitu réew mi nee na li nga xam ne nii moo doon suñu réew dafa am lu ñu doon loo xam ne itam dañ koo jële suñuy maam te nag war nañu mën a góorgóor ba duñ mujjee poche bi mu réer nee na nag loolu moo waral ñi nga xam ne nii moom moo doon taxawaay ak yar ak taxawaay bi nga xam ne nii moom la ñu suñuy maam bàyyi ak kilifa yooyu bàyyi nañu ko téye téyin woo xam ne nii wóor la ba li ñuy wax naan nañ ko denc suñu bëñ yi ñu tuddee roog seen nañ ko denc foofee ba kenn bañ ñoo tafu kenn itam bañ ci am lenn loo xam ne nii di nga ko ci def ba ëllëg bu ñu mënee soxla nañu mën a teg suñuy doom ci wàllu yoon ñu ba loolu duñ ko tumranke nee na nag bu ñu xoolee suñu réew wàllu waxtaan ak wàllu diisoo ak wàllu itam bokk di bokk menn pénc loolu dafa doon loo xam ne lu mënta ñàkk la nañ ci bën waaye nañ ci gën a bay suñu waar nañ ci gën itam xiirtal suñu bopp nee na loolu itam nañ ci gën a gar suñu bakkan ndax kat réew mi doon nañ ñoo xam ne ñi askanu Sénégal dañoo benn niroo ba noppi itam waaye itam dañoo war a doon benn ndax dañoo booloo ndax benn li ñuy boole moo fi nekk waaye amul lenn loo xam ne ni kuutaay la amul xejj amul seen amul kuutaay bennoo gi nga xam ne moom lañ war a mën a bennoo daal te ñu fekk ko fi démb nee na loolu nañ ko suuxat ba ku nekk mën cee bay waaram nee na nag mi ngi ubbi ay buntam ci wàllu waxtaan wàllu diisoo ak ñëpp nag bàyyiwul kenn amul xejj amul seen ngir li nga xam ne moo doon suñum réew daal te ñu war cee waggar war koo def itam suñu yëfi bopp war cee mën a jaayante ba dara du gàkkal deru Sénégal nee na loolu nañ ci gën a béy suñu waar loolu daal mooy li nga xam ne nii moo doon kàddu yi ndokkeel ak kàddu yi ba euh, euh, nuyoo yi nga xam ne nii njiitu réew mi def na ko Ibrahima ci li nga xam ne nii moo doon itam feet ki ñu dëgmal muy sant ñëpp di gërëm ñëpp Ali Seck euh, jërëjëf euh, pour euh, li nga xamante ne moom ñu moom nga ñu jox si kàllaama wolof di message du président Macky Sall euh, merci donc Khali Seck pour cette version wolof du la nation du président euh, Macky Sall le Sénégal qui célèbre donc 63 ans d'indépendance euh, la veille de la fête du 4 avril président Macky Sall s'est donc adressé à la nation message dans lequel le chef de l'État réaffirme sa président Macky Sall qui a reçu à l'occasion de la fête de l'indépendance les félicitations des hautes personnalités suivantes, Sa Majesté euh, Charles III, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, Son Excellence Monsieur Alain Berset, euh, président de la Confédération suisse, Le général Mahamad Idriss Déby Idno, président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Son Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Docteur Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDAO. Monsieur Kou Dongyu, directeur général de la FAO. ont tous félicité le président de la République à de la célébration des 63 ans de l'indépendance du Sénégal. Le président Macky Sall qui a rendu justement un hommage à ceux et celles qui se sont battus pour la nation sénégalaise, aux anciens combattants et aux forces de défense et de sécurité. Il toute sa le président Macky Sall rappelle les efforts que l'État de faire pour la sécurisation de tout le territoire sénégalais et À l'entame de son discours, le président de la République a adressé de chaleureuses félicitations à tout le peuple sénégalais. Il a rappelé le contexte particulier de ce 63e anniversaire qui coïncide avec le Ramadan et le Carême, marquant l'héritage des anciens, hommes de foi et de courage qui ont bravé l'hostilité coloniale et sa prétendue mission civilisatrice, a-t-il dit, ce qui permet au Sénégal de pratiquer son vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie. Rappelons le sens de la célébration de notre indépendance, le président de la République a rendu hommage à ceux qui se sont battus, ont résisté, ces héros qui, aux heures sombres de l'esclavage et de la colonisation, ont livré la bataille de l'honneur